sëriñ mu niiru nee na di ñëw ci pénc fekk fa koo xam ni ku ko jox mikro bu waxee pénc ma ku ko ko xañ pénc ma tas ndax dafay mbokk ñépp waaye bu waxee àdduna tukki loolu moo fi nekk ba léegi tabarkalla la kenn ku ne war a bàyyi xelam ci boppam kenn ku nekk war a seet lu mu mën a liggéey mu liggéey ko